ajaban sëriñ masamba kenn nii fàncanne xutbu ya falañ ko tànne moo gëm sëriñ tuubaa te gëm rasuulu te am tasawufam baam wusuulu bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa molana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi alxuril mayamin wa man tabiahum bi imaanin wa ixsaanin ila yawmi ddin mbokk yi ni ñu mbokki ni seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baal àq di leen àq ndokkeel ci weeru tedd wi ñu nekk di weeru gën ak àdduna yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñaan suñu borom subhaanahu wa taala li ñu defoon ci ay jàmm yàlla lépp dañ ko màggale guddik ku tedd gi suñu borom nanguñu lépp te julli julli ñu doon def ci moom yëpp suñu borom jotale ko ci di am mbégte lool tamit ci jataay bi di di fi euh, jotlante euh, ay ab xasida bu am solo boo xam ne kenn ci mag ñi toppoon Seexul Xadim radiyallaahu anhu moo ko def muy sëriñ ma sëriñ ma Sàmba Buso ngeen ko xamee sëriñ ma Sàmba Kan yi mu bokk ci mag ñi nga xam ne ginnaaw bu nu amee ak jegeñ ak jegeñaale ak sëñ bi lool boo xam ñëpp xam nañ ko waaye ñoom mbokk googo dañ ko jaayoon jënd ko ak taalibe ba ajoon sëñ bi aju aju goo xam gu mat sëkk la jeex ci moom takk ba tax na xasir gi ñu jot li ko tey jii lenn la ci luy wane seenu taalibe ak nangul ko nanguloon sëñ bi ak toppoon ko toppoon muy xasida boo xam ne mm, sëñ bi mi ngi ko way ci baxaru rajaz te ku nga xam ne mag ñi dañoo dañ daan tàmm ay rajaz ak basit di jigéen di way te daa war a luut maanaam li ñuy wax dëggum dëgg ci ñoom ak na ñoom way dañ koo jàppee moyen bu moyen bu ñu ay message waaye nekkul luy pik puukaréwoo ak ak di ko ndamoo ba di ca faaw wala yu mel noonu te xam na ne ku ne xam ne boo bëggee jàllale message moom baxaru yu mel noonu mooy li ci gën a gaaw mooy ndax moo ci a leer mooy gën a matale ñi ñu ëpp ci nit ñi tamit moom lañ gën di xam moo tax ñu fan faral di gën di ci rajas doon sax nag da nga gis tax ñu wàcc yeneen waxoor yi waaye bu ñu waxee loo xam ne bu ñu bëggee yoo xam ne day bëgg mu ay message yu jàll yu jëpp ci baxaru yu mel ni lañ koy way moo tax baxaru bi mu ngi ko way ci rajas baxar bi tamit xasida bi tamit euh, daanaka mën nga ne xalaat yi si nekk yu bari la doonte ñi donte juróomi bayit la lay tollool waaye li ci nekk ci ay ay xalaat ak yoo ak i idée maanaam lu yéeme yéeme la donte juróomi bayit rekk la euh, ba xasida mooy aslamtu lillahi taala sarmada kulli mahal xadimi thumma ahmada lahoo wahabtu bil xadimi wa rasul kulli wa maa li gayrihi rumtu wasul lillahi bil xadimi wa rasuli laa gayru kullu raxbati wasuli allahu kulli wa rasulu summa sabil allahu kulli wa rasulu lis sabil zaadi wasilati alxadimi wa nuful huwa alkitaabu yaa ilahi xaqiqi zala bil xadimi wa nabiyu xaqiq kon loolu mooy juróom abiyaat yi mu toll ak juróomi bayit bu dee ci bayit bu njëkk bi rek maanaam mën nga ko tënk ci ne danoon jëbbal boppam suñu borom subhanahu wa taala di ko ànd ceeg seexul xadim radiyallahu anhu waxin waxin wi nag waxin wi nag mi ngi ko jëlee ci alquran alquran noonu lay tibbee am na buur bu nuy wax Balxiis ba muy tuub ci yontu yàlla Suleymaan ni ko alxuraan nettalee dana inni zalamtu nafsi wa aslamtu maa Suleymaan li rabbil alamin jébbal naa sama bopp mi nga xam ne mooy borom bindeef yépp te ànd kook Suleymaan sëñ Masamba noonu la waxee fii ci wéy du njëkk bi daa wax ne jébbal naa sama bopp yàlla subhaanahu wa taala sama lépp jébbal naa ko yàlla waaye ànd kook Seexul Xadim ànd ko yonti bi alayhi salaatu wasalaam kon foofu loolu wane na tawxiid ju mat sëkk-sëkk mooy jébbal bàyyee bopp yàlla ah, ah, ni mu ni mu ko santaane mu mu mu jëfe wax mu jëfe ko noonu waxee ko noonu loolu lu am solo la ba foofu tamit dañ ci déggaale te loolu day feeñ ci day feeñ ci lépp mooy ne moom jamono ju nekk rek la muy def day bëgg di ko jaare ci Seexul Xadim radiyallaahu anhu lool mooy xalaat li ñu mën a dégg moom jamono jone day da ngay ci biir bayit yi donte juróom bayit la amul benn bayit boo xam ne lu fedd na ci aju gum aju ci sëñ bi ak xam leen na léppam ci moom ci moom la ko ci moom la ko jaare loolu moo feeñ ci bayit boobu nag maal xadimi nga ne sax moom la njëkk tudd doo ko tudd yonent bi alayhi salaatu salaam te loolu tamit mën nañ cee dégg bu baax a baax lu neex a dégg la te dafay gëm ne buntam mooy sëñ bi moom ci lay jaar mu mu jaarale ko ci sunna si yonent bi alayhi salaam mu dem ci boromam moo tax jamono jone day gis ne bu tuddee yàlla day tudd sëñ bi doo ko tudd yonent bi alayhi salaam te loolu li ko li ñu koy dégg rek weesuwut ne euh, da ko jàpp moom ne mooy mooy wasila mooy buntam bu jëm bu muy jaaree jëm ci yàlla euh, di ko dëpp di jaar ci di dëppoo sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon loolu bay du bay du njëkk loolu war na ci feeñ ci baax a baax a baax tawhid tawhid mati tawhid tawhid feeñ na ci ndax war na la ko jébal waaye tamit ak feeñ na ci ndax nee na yéen Seydou Khadim Rail ci lay lay àndal ci njëbal lépp mu ànd ak mu dox ci sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci baytu ñaareel wi tamit day wax ne léppam may na ko yàlla léppam waxtoom dundam coonaam xalaatam alalam léppam may na ko yàlla waaye nag di ko jaaree nag ci seelu xadim radiyallahu anhu ak ci yonent bi alayhi salaam jamono ju ne gis nga day feeñaat foofu lillaahi bil xadimi wa rasuli laa xayru loolu noonu la mel kon daal euh, mu ne léppam may na ko lahu wabtu lahu wabtu bil xadimi wa kulli mu ne nag àgg ci kenn ku yàlla kon day mel ni kon euh, maanaam daa jël lépp may ko yàlla lam ci bëgg nag mooy àgg ci yàlla hmm. àgg ci yàlla rek la soxla sox solowul la neen kon léppam jox na ko yàlla ngir lan ngir mën a àgg ci moom muy lu am solo baytu ñetteel wi bay dafay saxal ne moom euh, bëgg-bëggam bëgg-bëggam ak i càkkutéefam ak li muy ñaan lépp suñu borom subhaanahu wa taala la koy ñaan yàlla rek lay ñaan waaye nag mën na tawassul nag ci seexul xadim radiyallahu ak ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu nag mu dëppoog suñu wax na bu ngeen dee ñaan na ngeen ma ñaan euh, borom moom rek lay ñaan loolu loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ndax mooy maye waaye nag mën ngaa jaar ci ñu baax ñi ngir seen barke suñu borom nangu sa ñaan mën ngaa jaar si jëf yu baax def ko sa wasila suñu borom nangul sa jëf ubu taxu ilayhil wasilat la wax su ngeen jëmee ci yàlla da ngeen wut wasila wasila ba mooy ku baax tu yàlla waliyu yàlla wala jëf ju baax moo tax mu ne nag sama bëgg-bëgg yëpp sama ñaan yëpp yàlla laa koy ñaan nag waaye di ko jaaree nag ci ali Seexul Xadim radiyallaahu anhu ak ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam tàmbali bi rek nag moom gis na jamono ju nekk rek maanaam taalib gi day feeñ ne amul lenn lu muy wut te ji ko jaara ci ki nga xam ne mooy mooy yaakaaram àdduna ak àllaaxira muy Seexul Xadim radiyallaahu anhu te moom mi nga xam ne moom mi nga aju ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam lillahi bil xadimi wa rasuli laa xayru kullu raxbati wa suuli su ko defee kon loolu foofu uh, baytu ñeent ñetteel bi baytu ñeenteel lañu wax sax da ci wax ne yàlla yàlla mooy léppam yàlla mooy léppam léppam yàlla la daraam génnul yàlla la wax yàlla mooy léppam kon daal moom su amee ngërëmul suñu boroom am na lépp su ko ñàkkee amul dara ndax nee na moom yàlla mooy léppam waaye nag pour mu am am yàlla moomu nag wax na ne yoon wi mu koy jaar mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax yonent bi alxuraan waxoon in kuntum tuhibbuuna llaah fattabi'uunii yuhbibkumullaah fekkee li ngeen waxoon da ngeen bëgg yàlla wér na ci yéen da ma topp su nga defee suñu borom bëgg leen hmm? moo tax mu ne sama lépp yàlla la mu laa bëgg moom laay wut moom laay sàkku waaye nag yoon wi ma koy jaar nag mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaye nag war rasulu li sabil hmm. aw yoon nag ku cay jaar te fas dox ba xaw nar a yàgg danga soxla xañ na ku la say ku lay teete ba doo réer ba doo jàdd yoon wa da soxla tamit yóbbal boo xam ne daa tax doo lor ci yoon wi moom nag sama ki may ki may giide nag ci yoon woowu moo xam ne yonti mooy yoon wi waaye ki ma ciy giidee ki ma ciy wommat ki ma ci ki ci sama yóbbal mooy Seexul Xadim radiyallaahu anhu zaadi wasilati zaadi wasilati alxadim sama yóbbal sama wasila mooy alxadim anuful mooy sama ndollin mooy sama ndollin bëyit bu am solo am solo wax na ne moom yàlla rek lay sàkku sàkku leen waaye waaye ci biir ci biir wax ji xam leen ne yàlla mi may sàkku kat mënu ma koo am te jaaruma ko ci yonent bi alayhi salaam kon nag mooy yoon wi yoon woowu tamit mënu ma cee jaar baag fa ma jëm te amu ma ci omat ak ma ci jox yóbbal te mooy Seexul Xadim radiyallaahu anhu muy muy lu am solo loo xam ne euh, ku ne mën na ko roy ci moom. muy lu jub lu jub loo xam ne ku ne ni ñu war a xalaati yàlla rek lañ sàkku waaye nag kenn mënut am yàlla dëppoo ak sunna si yonent bi alayhi salaam jaaroo ci sunna si yonent waaye tamit ah, loolu tamit ñi xam ne ñëpp jotiwuñ ci ku nga bañ nga bañ a réer nag koo xam ne nga am ko xam ne wasila am sa yóbbal koo xam ne moo lay gindi moo lay teete loolu mooy dugal ba yëpp kon lool mooy yoon wi mooy lu leer loo xam ne Euh, maanaam bind bu mën a bu mën a jàngee ci ci suñu sàmm mi ci muy lu loo xam lu leer ci bayitu ñeenteel woowu bayit yu mujj nag da cee wax ne euh, da cee wax ne mm, day da ci ñaan daal comme ni ko baaxee rek bu ñaar bu ma saa waay bay jeexal day delluwaat seen borom ñaanaat daan wax ne suñu borom. yàlla nga amal lii ma ñaan lépp li fi ñaan lépp yàlla nga ko amal te jaaree ko ci Cheikhul Khadim gis nga ba tey jaaree ko ci barke kon dal ci wasila ci jaar barkeb Cheikhul Khadim radiyallahu anhu maa ngi ñaan nga amal lii ma li ma bëgg ak ci barke ak ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon nga xam ne kon toujours ba tey gëm na ne suñu borom la ñaan waaye nag mi ngi mi ngi def tawasul mu ngi def tawasul ci Cheikhul Khadim radiyallahu anhu sëriñam di tawasul nag ci yonent bi alayhi kon abyaat la yoo xam ne juróom la waaye nag mënees na ci jànge yu baree baree bari jàngees na ci ak ommatu ci yàlla ci biiru njëkk ba la lam njëkke ñu jàng jàng ci tamit ak aju sëñ bi aju gu wér a wér a wér a goo xam ne ngir fàttali ko tax na mu feeñ ci bayit yëpp bayit yëpp feeña ci jamono ju ne fu nekk rek sëñ bi lay jiital Euh, doo ko doo ko tudd yonti bi alayhi salaatu salaam ngir ne mooy buntam bi muy jaaree baag ci yonti bi alayhi salaatu ci bayit tamit ne bëgg-bëggam ak ay càkkutéefam lépp lépp lépp yàlla rek la ak yonti bi alayhi ak seexul amul benn bëgg-bëgg amul benn càkku càkkutéef loolu ci sëñ bi yàlla yonti bi waaye nag feeñal na ci ak njaamam ci yàlla ngir fi ñu waxee ne moom léppam yàlla la ne wax na ne kulliyatuhu lillah léppam yàlla la lool mooy wane ne moom jaamum yàlla rek la jaamum yàlla dong la dara amul ci man ab cër yàlla rek la loolu ak ubudiyya gu mat sëkk la gu ma ne foofu saxal na ci biir ci biir ne yonent bi alayhi salaam ku bëgg jëm ci yàlla mooy yoon wi jaar wax wax na ko ci biir bayit mu leer nañ mu dëppoo la seen borom waxoon rek ca aaya ba kon yoon yoon waa ngi noonu te mooy yoon bu ne yonent bi mooy yoon mooy nga dëppoo sun sunna lépp looy def nga di ko dëppaleeg sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbir biir bay tamit saxal na ci ne euh, wasilaam ak yóbbalam ci mboolam li muy def ka ci wasilaam ka ci royteefam mooy mooy seexlu xadim radiyallaahu anhu amul benn royteef amul benn wasila amul fenn fu mu jaar kurut yoon kurut seexul xadim radiyallahu anhu mu jeexale ko nag ci ne la ñaan lépp tamit euh, xëy na daana def lu baax lu nekk waaye ay jëfam li baax baax doyu ko kami tawasul ci moom bëgg caa jaare ci barkeem mooy sëriñam seexul xadim radiyallahu anhu ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir suñu borom amalal ko ay bëgg-bëggam yëpp may ko ay càkkuteefam yëpp kon loolu ci gàttal mooy abyaat muy weer yoo xam ne xëy na gàtt na waaye lamoon na maanaam yu bare bare bare bare ñu mën cee jàngee suñ mag ñi seen tawxiit jàng ci seenu taalibe yaa jàng ci seenu dëppook sunna muy lu am solo ab jullit la rek la am tawxiit suñ borom bañ ko booleeg dara dëppook sunna bàyyi bi daal loolu def lépp nga dëgg dëppook sunna ajaban sëriñ Masamba Kanni fàncanne xutbu ya falañ ko tànne moo gëm sëriñ Tuubaa te gëm rasuulu te am tasawufam baam wusuulu